ñun dañuy daq le bilan matériel maanaam sénégalais yi nekk à l'étranger seen tukki yépp tabax kër tabax kër tegale ay immeuble loolu moo créé représailles sociales bi ci biir réew mhm. moo waral xale yi tamit jàpp ne ñoom it tekkuñ dara ñu daal di takk mbaal mais tey les hommes politiques aussi est-ce ci responsabilité bu ma responsabilité mhm. euh, ñëwuma ci euh, euh, ñàkk joxe xëy bi mhm. parce que loolu xëy na état la moo ko war ak secteur privé mais ñiy wax que ne ces jeunes ont perdu tout espoir et que ils essaient de les comprendre dans dans dans ces migrations yi nga xam ne ñu ngi koy effectuer ñooñu aussi est-ce que amuñ ci benn part de responsabilité. Euh, politique yi mais ñoom ñoo gën a hypnotiser boy yi pour ñu dem parce que ñoom normalement yi nga xam ne moo tax réew mi demul ñu nekk fii kenn ku nekk de part et d'autre. Mm-hmm. ñii di jël xale yi di leen dóor ci ñi kaw ñi tekki dara ba pare au lieu ñu sensibiliser xam ni travail collectif la war doon dañoo war a yee sénégalais yi kenn ku ne ñu xam yow lan mooy sensu sa sa